toppatoo lañ jëm diggante ñii di waa Sénat ak DGE loole la ñuy njortu suñu sukkandikoo ci xëccoo bu métti bu am ci diggante ñaari institution bi ñeel ka Ousmane Sonko xëccoo boobe sax tax ba ñii di avocat Sonko formuler ab requête ci Sénat ngir mu remplacer direction général des élections jox kii di Ousmane Sonko ay fiche de parrainage kii di Babacar Fall bu Gradec di xamle ne ñii di waa Sénat am na ñu doole def lole boo demee ci code bi article dafa jox Sénat ay sañ-sañ yoo xam ne bu fekkee ne. dafa am euh, autorité administrative boo xam ne dafa respecté wu loi électorale bi Sénat mën na euh, daanaam jox ndigal ne ko na jéem a corriger loolu bu fekkee ne autorité administrative bi dafa bañ Sénat am na maanaam pouvoir boo xam ne dindi loolu ci loxoom ba noppi la euh, kuréel boobu waroon def Sénat def ko rax ci dolli ne Sénat mën na sax maanaam yóbbu ndawul buur boobu maanaam ci kanamu juridiction yi ci kanamu yoon loole nag teewul ki nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllum élection mu ngi xamle ne ñaari institution yi la jàmmarloo loolee baaxul benn yoon ci processus électoral bi. ma masuñu am situation boo xam ne Sénat ak euh, direction général des élections nekk nañu en conflit ouvert. yaakaar ne moom mooy solution mooy ñu fexe ba ñaari euh, kuréel yi jéem a toog waxtaan waxtaan woo xam ne dina jural euh, njariñ maanaam askan wi parce que ñoom ñëpp. kenn mënti dem bàyyi sa morom. ak lu ci mënti am aji ñooñu Sonko moom fas nañu yéene bés fi nga xam ne moom mooy métti ndax avocat yi ñu ngi xam ne ñii di waa sax delloowaat nañu Sonko ci fichier électoral bi di weddi déclaration yi nga xam ne ñii di waa DGE defoon nañ ko ba tax na ñuy ñaax Sénat mu xamal ñii di waa conseil constitutionnel bépp jafe-jafe bi nga xam ne seenub candidat dund na ko ci processus bi